di sant yàlla di nuyu sama ñaari waajur di ñaanal sama waajur bu góor fa mu tëdd yàlla na ko yàlla xare àjjana sama waajur bu jigéen sama yaay sama sëriñ sama xarit sama lépp yàlla na ko yàlla bàyyi sama kanam ba ci kanam a kanam di nuyu waa yoof yëpp di nuyu waa écurie yoof si kaw ba si suuf di jël nuyoo bi di koy teg si suñu président Baytiir xam nga mu joxal ma ko ñëpp di sant bu baax nag di gërëm ñëpp non Babacar Diagne moom bi may ñëw Babacar laa tudd mais coach subi damaa def lu tax ñu won ko parce que ku jaar équipe nationale xam nga euh, jaar euh, armée ñëw douze jóge douzième bat ñëw Kodo jóge Kodo jaar GIGN xam nga deux mille euh, vingt deux mille deux yàlla def ma jot rek benn kilifa ñu sumi ma reversé waan ma asfa ma gedd bàyyi ko waaw jaar naa foofu yëpp waaw jël quatre fois championnat d'Afrique kickboxing waaw yore fi nag ñi jaar samay loxo ñëpp tey si làmb ji ñu ngi leen di gis waaw su ma limee moom du ma fi jógee mais yàlla baax na daal waaw. waaw rëg-rëg benn affaire la woon moom ñëw na yoof yoof amoon benn mbapat rëg-rëg bi muy ñëw yoof man maa ngi yore caatu yoof ak ñoom euh, capitaine Dina xam nga ñooñu laa yoroon rëg-rëg ñëw yoof ñëw bindu si poids lourd yi ak poids léger bi mu ñëwee si poids lourd yi daan ñëpp poids nag mu ñëw. daan ñëpp ba final mu dajeeg sama sama sama sama kii bi sama poulain bi nga xam ni tey maa ngi koy ñaanal xam naa ne day téye roi roi des arènes bu soobee yàlla waaw bu am parce que moom am na gétt muy caatu yof waaw am na gétt bu bëree bu rëy la ñu bëree bëree bu gaaw mu daan mu daan ko daan bu gaaw caatu yof te ko daan daan bu gaaw sax waaw fii laa xamee rëg-rëg bi mu ji affaire bi jeexee nag si la ñëw sama gaale ñu toog mu ànd ak benn boy bu naan Cheikh waaw beneen gaayen buy toog ci cumukaayam mm-hmm. waaw keroog man kooku gëj naa ko gis tamit mm-hmm. bi ñu ñëwee ñun ni mag yow yaay Babacar man leen waaw man maay coach Babacar Diagne ñu ni ma dañoo kii Omar Kane la tudd xam mm-hmm. ñu naan ko joolaa xaw ma joolaa doon wuyoo jamono jooju waaw ñu ni man ne ko joolaa mu ne waaw mu ne ma man bërikat la ma ne ko am nga carte d'identité mu ne ma amaguma ko mais mën naa ko lijjanti man ko boo indee sa carte d'identité ma defaral la licence te di nga dégg waaw tey moom alhamdulilah di koy ñaanal nag yoonam wi mu jëm yàlla jàppale ko si waaw parce que nungu na mbër mu nungu la waaw. kon su déggee rek rek jaar na biir loxo tey nga am loo def si moom mais ñëw bi muy ñëw nekkoon si yow dafa nekkoon écurie Yoff wala naka la demee woon. bi muy ñëw si man boobu caaro yi daal moo amoon écurie waaw après nag fur à mesure ñu dem ba moo ko amee dem ñu lijjanti seen kayit waaw ma amee dem ma koy di koy nuyu au passage di koy ñaanal jàmm parce que kooku xale bu yaru la. ba tey ji may wax ak moom maa amee dem dañuy déggante boo amee combat dama koy ni ko lii ak mu nekk koo xamante ni taalibe cheikh la ku baax bu may wax làmb ji amee dem moo fi gën dama koy wax parce que amee dem am na yar am na teggil fu mu lay gis day bàyyi lépp moom fàttewul sama digganteeg rëg-rëg nañu xamante ak ba ko rëg-rëg bi ma koy présenté waaw ma koy ñaanal macha allah li mu jëm yàlla na ko si yàlla jàppale waaw bi euh, dem ngeen ba pare arène wala. waaw def nañu premier combat Reug Reug man maa ko lijjanti sëñ Modou Niang moo ma ko jox premier combat man maa ko lijjanti man maa dox ba kër sëñ Modou Niang jour boobu dañoo pare entraînement timis mu woo ñu maa Reug Reug dañoo dawee yoof ba Pikine si laay xam ni kii xale bu nangu la te xale buy toj làmb la waaw dañoo dawee yoof lañu dawee ba pikin te bi ñu ñëwee ñu xool adversaire bi ma ne ko da ngay jël kii. mi ngi ba waa ji mi ngi sol benn benn benn kii jàllaa bi mhm. ma ne ko kii moolo la sut ëpp la mu ne ma jëlal avance bi kii dama koy daan du yàgg mhm. ku gëm boppam depuis boobu nag ba léegi loolu laa gis si booy bi mhm. waaw. Euh, gisatuñ gisatuñ diggante bi dem comme ni mu demee woon lan moo waral te mu jékki-jékki rek écarté am sa digganta te moom. tey jii mënu la expliquer rek rek lu ma jotee ak moom. Ah, mënu ko expliquer kenn. gis la am lu mu bëgg si yow. nga tàggat ko jàppale ko ba écurie bi am ay papier ba mu dem ba bëre premier combat am tey nga jékki-jékki diggante bi jeex xamoo lu ko waral. def naa bi ñuy bàyyante mi ngi si 5 kombaa 6 7 combats waaw man maa ko mujjee woo jëluma ma insisté jëluma si laa xam ne kii dafa jël yoonu boppam jëluma ma woo ko mu nekk en communication ma woowaat ko jëluma ma woowaat ko mu nekkaan en communication man lébu kenn du ma gën a am fulla ci laa ni natoog toog ma toog ma puus samay mbër yàlla jàppale ma tey ba ma defar ku mel ni Thiatou Yoff ma koy ñaanal yàlla jàppale ko ba mu téye roi des arènes yaru na teey na dal na gëm na entraînement te gëm na boppam te man loolu laay soxla si doomu aadama. mais diggante ñàkk sax bu xam tamit amoon na ci ba tax tey nga jékki-jékki woo ko téléphone jëlul la wala moom mu jékki-jékki téye boppam ci yow. non dama naan niveau bi mu tolloon la après parce que dafa jékki-jékki ñu naan rëg rëg rëg toj na fii toj na fi parce que. làmb dafa am ñoo xamante ne ñi ngay àndal ak ñi ngay jeexal du ñu bokk waaw parce que rëg-rëg defuma waxuma ma ni defuma ko waxuma noonu la demee xam nga ba tey jii musuma dégg lu ma métti ci moom moom it waxuma lu ko métti waaw ba tey ji may wax ak yow yaru na gis naa ni gëm na boppam yaayam fonk na yaayam parce que lépp sama kanam la yaayam xam ne sama digganteeg rëg-rëg yaayam xam na bu baax sama digganteeg rëg rek man dama koy ñaanal fu ma tollu de gisatuma ko déggatuma ko parce que woowatuma ko parce que koy woow jëlatu la yow dangay am xam sa bopp nga toog mais ay jamono moom moo ma soxla woon waaw parce que gisul woon kenn waaw maa ko njëkk a génn télé maa ko njëkk génne génn journal waaw mais nag musuma manqué respect xale bu yaru la xale bu teey la dal na bu dee buñ dee musculation maa ko njëkk defal bu dee boxe si man la ko njëkk a defee waaw bu dee quinze quinze yu mat si combat si làmb ak ni muy contagé yépp gisuma changement am nii laa ko mës a gisee nii la mel euh, li ma gënoon a bëgg lu taxoon ma gën ko jàppale mooy dafa bëggoon papaam ak yaayam da na a fonkoon te man boo xale boo ñëwee li ngay jiital rek sama papa sama yaay di ñaanal papa yi rek rek fa mu tëdd yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw parce que papaam tamit toog naa mu toog mu ni ko rëg-rëg loo lekk ci làmb nan ko bokk ak Babacar mi wallaahi lazim weeru koor laa nekk papaam yéeneem loolu la woon yaayam tamit yéeneem loolu la woon mais nag dafay nekk jamono joo xam ne da ngay nekk niveau boo xamante ni yow bu asamaan si daanu sa da nga naan yow rek la waaw te loolu laa gëm si nit ni mu def nii noonu la man am naa samay yaakaar sama yaakaar ñi ngi yoof yoof dama am yaakaar si li nii waaw. léegi tey tey fi mu toll ci biir man lu la bett la wala. ma lii nii bettu ma parce que mbër da ngay am gét te booy ànd ak ñoo xamante ni tey ah mosu ñoo def sport de combat mosu ñu jaar armée du ñu mën a wax ak koo xamante ni dafa jékki-jékki yore di tëdd si clim duñ ko wax dëgg mais nit booy ànd ak moom boo ko bëggee da koy wax dëgg te gëm naa ni ki mu àndal muy booy bi muy àndal muy Cheikh gëm naa ni dina ko wax dëgg moom. ak nu ñu mën a def Cheikh dinañ ko eh, mbër defal lii ak lii parce que gis naa ko si moom seede yàlla wallaahi lazim billaahi Cheikh xam naa ni moom mën na wax dëgg rëg-rëg mais rëg-rëg moo nekk koo xam ne daa dëgër bopp bala muy def moom day xool li mu li ko arrangé ba pare bu gisee mu soog a def waaw loolooy jikkoom léegi euh, ndax jamono mën na dox tey ba ba sa booy bi yor bëreeg mu bëreeg rëg-rëg waaw loolu de lay ñaan moom laay ñaan yàlla. non non amul lu ñuy xool parce que xaalis bi moo ñu boole ak làmb waaw mbokk gi ak lébu gi la waaw te loolu du ci dara sport la dañ koy jël ñu bëre après bu jeexee ñun ñëpp ñu àndoo waaw tey jii rëg-rëg bi ñu ko doon jox Malick ñaa man bëggoon naa mu bëreeg Malick Niang waaw waaw am lu mu def ci làmb ñu jékki-jékki mu génnoon def benn sortie nii bàyyi na làmb milliards sax taxatul mu ñëw ci làmb mais gis nañ keroog suñu papa père Birame ñi ngi def benn sortie di am na yaakaar ni kat Malick Niang bientôt ci lu yàggul dara dina ñëwaat ci biir làmb yow loolu noo ko gisee. Malick Niang couleur yoof la yore drapeau bi ñun ñoo ko ko jox moom fekkul drapeau bi mu jël ko de mais mbag yoof magi yoof ñoo jël drapeau jox ko Malick Niang kon lu si mënti nekk rek Malick dina toog ak mag yoof yëpp ñu woo presse bi yëpp presse yëpp ñëw toog ak coach yi ñëw toog mu wax ak yéen parce que benn am na éducation. ñëg-ñëg nag day am da ngay jekki-jekki ni man parce que dañ lay jox diw ñu ni diw nee na du bëreek yow ndax lan da ngaa toog ay kii Malick Niang si kalaaf la génne onze combats benn muñal la dégg kon boo ko jëlulee da nga ko ragal tafaati nag Malick Niang combat la woon ah euh, ni mu tudd la de Guiers Malick Niang la woon mais ñoom su fekkoon ñoom gëm nañu sport ñu xam ni kii kat c'est un champion ñoom ñu ay champion barke alxuraanul karim dañu naan ah jox leen ma Malick Niang moom tàllal ko ndax mu bokkaat un champion loolu lay def mais man ñi ma gis nii si làmb ji muy Balla Gaye ak ñoom ñëpp buñ doon ay nit mennum caa ci Sa Thiès gis mu jël téléphone am ko ni ko mbër ñëwal kooku Sa Thiès xolam na ko yàlla fay xolam